ci 2005 2006 bi mu tasante ki nga xamante ni mooy Alioune Seye numéro 2 mu daal koy daan dem troisième sortie daan ki nga xam ne mooy Pape Bouba Diop daan Serigne Diouf daan Khadim Diallo ci atum 2005 2006 Modou Lo am ci 4 4 4 combats 4 victoires 2006 2007. Modou Lo daan ki nga xamante ni mooy Laye Bey mu daat koy daan te ci te ci les 2 te ci le Cheikh Niang 2006 2007 Modou am ci 3 victoires 2007 2008 mu daan Tafa Boy Bambara 2007 2008 mu daan Papa Sow ca Kalaaf ba daan Paul Maurice. daal dem ba final ba daal di desanteeg Boy Kairé daal di koy dóor mu daanu 2008 2009 mu daan Balla Diouf 2008 2009 mu daan Issa Pouye 2000 2000 2009 2010 ndeysaan ci atum 2009 2010 la Modou Lo si lay jegee dégg mu ñël 14 combats 14 victoires Balla Gaye numéro 2 moo ko njëkk a daan ndeysaan mu jugee fa bëre ki nga xamante ni mooy Baye Mandione daat koy daan bëre ki nga xamante ni mooy Lac de Guiers numéro 2 mu jëlee fa machinil bëre ki nga xamante ni moo di Gris Bordeaux mu daat koy daan bëre ki nga xamante ni moo di Eumeu Sène mu daal koy daan ci atum 2014 2016 2014 2015 si la Modou Lo daal di bëre ki nga xamante ni moo di Bombardier Bombardier moo ko infligé li nga xamante ni moo di deuxième victoire am deuxième défaite am pardon du bëreeg ki nga xamante ni mooy Gris Bordeaux daat koy daan bëreeg ki nga xamante ni mooy Lac de Guiers numéro 2 koy daan 2018 2019 mu bërewaat ki nga xamante ni mooy le Lion de Guédiawaye Balla Gaye 2 numéro 2 daat koy daan ndeysaan 2019 2018 2019 mu bëreeg ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène mu toog quatre ans bëriwul ndeysaan ci atum deux vingt trois bi doomi Falaye Balde bi mu nekk combat bu doy waar combat bu ñëpp doon xaar ndeysaan Modou Lo indiwaat benn image yu ndeysaan kokoy Modou Xarañ Babacar ndeysaan le grand reporter ñoo ngi lay ziar di la rafetlu sa liggéey bu baax a baax

Modou Lo egsi na arène nationale ndeysaan xoloo ma mbooloo mi xolol ma Modou mi xolol ma mbooloo mu topp Modou Lo mbooloo mu topp Modou Lo ndeysaan laa xew ma kul shay yaa ngay yàq xew ma

ñu wàcc waaw ñu wàcc lii ko doon teg nii après moom soo wàccee pare mu jël pare di ñu ko def bi nga nekk mu gën a gaaw premier day xam di ñu ko def bi nga nekk bone bi ana saay papi papi kaay jaaral nii foofu moto yi moo tax jaaral bi du ñëw jàppale la foofu ngeen wàcc waaw ah, porte bi day ubbeeku de porte bi waaw nice ubbil ko porte bi am ubbil porte bi waaw ñu ngi loolu ñu topp de ak suñu baba micro micro micro bi micro bi Muju bara fii di jaxasu Baye Ibrahima waaye Birane nekk du ko mën commentaire Hey! policier yaa ngay dóor lacrymogène yi policier yaa ngay dóor lacrymogène yi ñoo ngay dàq xale yi xale yaa ngi leen di sànni la ilaha illallah mais kaay nga ci ñoo defee nii nga daw ko ba. nan lan. waaw waaw nan lan ko waaw. amoo accréditation nga bëgg a dugg. waaw gars ah, yi ngi dugg nga naan ma amoo accréditation nga bëgg a dugg. am na ñu def. dañ dugg. ñoom boobee ngi ne dugg nañ.